asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki internet yi tey nag ñu ngi fii ci cité Damel ci kër Cheikh Baye Ndiaye borom solution Cheikh Baye Ndiaye nag bu ñu ko waxee xel yëpp dem ci ñaan yàlla waaye Cheikh Baye Ndiaye bu ñu ko waxee xel yi dem ci social Cheikh Baye Ndiaye bu ñu ko waxee xel yi dem ci li nga xamante ni mooy jinne Cheikh Baye Ndiaye nag nekk kilifa goo xamante ni yàlla dogal na. mu ngi dem dëkk yu bëree bëree bëri ci àdduna bi moo xam ci dëkki Europe bi moo xam ci dëkki naar yi waaye di jëflante ak doomu aadama yi li nga xamante ni mooy faj aajo tey nag mbokk yi seetaan bëgg naa ngeen xam ne képp ku bëgg xaalis teewul émission bi danga bàyyi ko xel te xam ne moom tey dana maye secret li nga xamante ni mooy xaalis kon ku bëgg xaalis rek teewlu tuuti ci biir waxtaan wi danañ ci ñëw bu baax a baax baax Cheikh Baye Ndiaye ñoo ngi lay ziar di la nuyu. aouzu billahi min alcheytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim subhanaka laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalim alhakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu ginnaaw bi ñu sante yàlla julli si yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ñu ngi leen wax bismillah seen kër seen mbokk seen xarit Cheikh ba Ndiar gi guide spirituel borom solution de ambassadeur of peace and love di guide moral action humanitaire pour le développement et la culture du Sénégal di leen wax bismillah dégg de xaar sa laaj yi ngir ñu ñëw tey waxtaan waxtaan bu am solo boo xamante ni askan bi yëpp yaakaar nañ ne danañ ci kontaan incha allahu taala Cheikh Baye Ndiaye laata waxtaan wi dama bëgg ñu waxtaan ci li nga xamante ni jot naa ay yóbbante ci internet bi parce que doomu aadama yu bëri jàpp nañ ne Cheikh Baye Ndiaye ñaanu xaalis la gën a man ñoo ne leen Cheikh Baye Ndiaye boo tëju woon baa nga banque baa nga gën a ñàkk ci àdduna bi bu la ñaanalee wala nga jot ko téléphone mu wax la defal nangam sàngam nga am xaalis est-ce am na ñaanu xaalis nga gën a mën wala am nga leneen loo xamante ni mën nga ko lu dul ñaanu xaalis kese parce que nit ñi tamit ci xaalis rek lañ lay non alhamdulilah man moom lu ma mën ci wàllu càngat moom bëri na waaye càngatu xaalis moom damay faral di ko wax sama spécialité la ndax ni ku nekk dafa am lu koy yàlla di may ndaxte doomu aadama dafa am loo xamante ni moom moo koy tëj ba tax munu am dara buy wut dara du ko am wala bu ko amee mu rëcc ko comme Cheikh Baye Niang nag spécialité am dëgg nag ci wàllu alal la te ku ne alal nag xam ne àdduna bi nit munu fee dund te amoo xaalis. loolu ku nekk xam na ko dañuy suñ saxaaba bu tedd ba bu tedd ba Seydina Ali karamallahu wajhu daf doon wax ne mi ne ñàkk su nekkee góor yàlla bu nekkoon góor yàlla dinaa ko war ba xam fu mu nekk ma fekk ko fa faagaagal ko ndaxte dayo bi mu xam ñàkk dayo bu mu am si société bi bëri na agression yi ngay gis noonoonte bi ngay gis sax nit sax keñaan sax ñàkk da koy da da koy da koy sabab ci nit te loolu ñu bëri bàyyoon ci xel ndaxte doomu aadama di xëy di wut du am rek bu yàggee xolom bi dafay soxor loolu dafay bëri lu muy def société bi moom nag ma boobu sagesse boobu la ko yàlla may moo tax mi ne ñàkk bu nekkoon góor yàlla dina ko wër ba gis ko fu mu nekk mu faagaagal ko ndax xam na ñàkk problème bi muy indi société bi ku ne xam na Sénégal bii nii problème yu ëpp yu am su société bi ñàkk ko waral nit ñee ko nangu tawax rek mais ñàkk lim créé société bi parce que ñàkk da nga gis nit sax am dara di si jaay nit doole loolu ñàkk daf koy waral nit ñi amuñ doole da gis beew bi dafay bëri si biir dëkk bi jaayante doole bi par parloo bi dafa bëri si biir dëkk bi yooyu yëpp ñàkk daf koy waral parce que ku ci nekk rek yaa ngi bëgg suma ma amee keneen du am man maa war a avancer keneen du avancer comme ñàkk li muy war a société dafa bëri nag waaye alal bu gën a gaaw nag moom mooy alal léew boo xamante ni alalu jinne la waaye bu ñu ko waxee jinne yoo xam ne ay jullit lañ moom la ñuy jëflanteeg mën nañ laa jox alal boo xamante ni doo si am bakkaar te doo jaral ngay dam di nekk ay faramason wala ay góor jigéen ak wala politiciens yoo xamante ni lépp luñ la wax du dëgg mun ngaa am alal incha allah képp koo xamante ni am na si yaakaar su si jëflante ak ñun si kàttanu yàlla yàlla dina ko defal tawfiq ak taysir si loolu si kàttanu yàlla. mbokk mi yow mi seetaan jëlal numéro téléphone ki nga xamante ni mooy Cheikh Baye Ndiaye guide spirituel borom solution 77 972 00 00. 77 972 00 00 jamono yi ñuy wax yenn yéen sëriñ bi ñibbisi na ci tukki bi mu ngi fii ci réewu ndakaaru ci cité Damel waaye sëriñ bi ci ñàkk googu lañuy ñuy dese ni wax ci ba ci kanam léeg-léeg lan mooy waral doomu aadama di ñàkk parce que dañuy dégg léeg ci yenn sëriñ ñu naan nit biddiw la biddiw yooyu tamit bëgg nañ nga tojal ñu ko wax ñu lan mooy tax nit di jekk-jekki rek juddu rek yàlla ne moom kii du am dara du am dara ci àddunaam waaw alhamdulilah nit biddiw la suñ ko waxee doomu aadama dafa am loo xamante ne moom moo composé si moom yàlla moo ko def si ñun loolu nag foog nga xam lañ naan almu nujum nga dog koo xam almu nujum moom moo lay xam loo taxawaayu nit ki ak biddiwu nit ki ndaxte nit dafa tënku si ñeenti mbir koo xamante ni biddiwam dafay nekk biddiwu ndox am na koo xamante ni biddiwam dafay nekk suuf am na koo xamante ni biddiwam dafay nekk ngelaw am na koo xamante ni biddiwam dafay nekk safara kom yii nii la nit taxawee comme nit mënoo ko defal dara te xamoo biddiwam biddiwam moom nga mën a xam defal ko ngir li koy jëriñ kii dafa soxla alal mën naa am alal bi yàlla bindoon na ko si lawxul mahfuz lawxul mahfuz mooy balaa doomu aadama di judd foof la yàlla di bindee li muy dogal si dégg daaj mi ne dana ko war a am si àddunaam foofu la yàlla di bindee lépp mën naa am alal boobu mi nga war a ñëw si moom waaye dafa am fu mu takk loolu nag nga am sëriñ boo xamante ni sëriñ bu am leer la bu xam baatin dëgg moo ko mën a xëcc boobaa dafay xam bidéo am da koy xëccal indil ko moo xam tamit si wàllu kaaraange si bidéo si nga xamee nit kii nii lii la soxla si nga xamee kii nii dafa soxla kaaraange si dundam bi pour avancer wala dafa soxla euh, wërsëg pour avancer parce que dafa am nit yoo xamante ne dafa am na lu leen ñu tënk pour jox leen alal am na koo xam ne moo tax mënut a am alal mm-hmm. waaye yooyu yëpp si ngay xamee biddiwu nit ki ndax nit dana takkanteeg nit ñàkk xam biddiw moo tax nga dugg ci nit fay kamaj mm-hmm. loolu gis nañ ko fi ba sonn ndaxte yow exemple rek boo nekkee sa biddiw bu nekkee safara ndaw si nga xamante ne moom ngay dem di bëgganteeg biddiwam nekk ndox. ku nekk xam na ne ndox ak safara àndul dafay fay boo amoon nekkal multimilliardaire amal lu nekk amul tur soo amoon tur wala nga am bayra wala nga nekkuñ xam soo duggee ci moom sa mbir dafay fay nekku na ndaw si moo bon ayut gaaf dangaa dem duggante koo xamante ni seen bidéo méngoowut noonu la demee nag da ngay ànd koo xamante ni sa bidéo dafay ànd ak moom kii bidéo bu nekkee safara ak ndox àndut kii bidéwam ngelaw la ngelaw ak suuf ku nekk xam na ne ànd na kooku moom yooyu yëpp am na loolu nag si ngay xamee tabia nit ki si ngay xamee nit ki ak lan nga koy defaral comme bidéw moom mooy nit kii seet sax foofu si loolu lay mën a sukkandiku pour xam li muy defal kii mu jëriñ ko mu defal ko ko si kàttanu yàlla waaye sëriñ bi fan yee passé dañoo gis ci internet bi. Mm-hmm. boobaak léegi war naa def juróomi weer. Mm-hmm. benn femme boo xamante ni mi ngi nekk ci réew mu ñuy wax Singapour. mu ne dafa amoon problème bañ àtte ko ba war koo tëj fukki ati kaso bi mu déggantee ak yow nga ne ko dinaa la génnee ca kaso ba. te nee na moom li ko jaaxal mooy fexe nga ba mu génn kaso ci àpp ba nga ko waxoon te joxoo ko saafara joxoo ko mu takk joxoo ko mu naan mais xanaa da ngay confirmer yaay borom jinne yi. waaw alhamdulilah jinne moom lu ci yor dafa bëri ñu ngi siy jëflanteeg lu toll 1129. waaw loolu wax naa ko dinaa si andi ay révélation yu bëri yoo xamante ne ay jëf la ak liggéey yi ma cay def si biti loolu rek nga wax si ndaw soos dama la si jox benn misaal rek ndaxte sama moom loolu daf ko mos a mu dem États-Unis moom bokk na si sëriñ Sénégal ñu njëkk dem Amérique di yaatal foofu faydatu Tijaniya si ay année 80 ñu boole kaa benn waaye boo xamante ni ñag la waa Ghana la dafa rayoon nit foofu noonu ñu daf ko peine de mu ëlbati affaire bi peine de mort bi ñu annulé ko te loolu lu raar la. te loo sama maam def na ko comme macha allah ñun dañuy ëlbati mbir mbir dañ koy ëlbati loo boo gisee dafa am gàllaaj yoo xam gàllaaji ëlbati mbir la tudd loolu mbir lum garaaw garaw garaaw garaw garaaw garaaw ak dayo bi lu mu toll toll toll toll toll mën nga ko jël ëlbati ko changé ko loolu nag foog nga am baatin bu leer xam-xam boo xamante ni xam-xamu dëgg la bu ko defee si loolu ngay mën a ëlbatee mbir ndax mbir dañ koy ëlbati. mbokk mi yow mi seetaan moo xam nga am jafe-jafe ci sa wàllu yaram moo xam nga am jafe-jafe ci sa wàllu sëy moo xam nga am jafe ci sa wàllu àdduna wala sa àndandoo wala lu mën doon boo bëggee mu faju jëlal numéro téléphone bi nga xamante ni mooy Cheikh bàyyi Ndiaye borom solution mu ngi nekk fii ci cité Damel 77 972 00 00. 77 972 00 00 numéro bi mooy daw noonu ci suufu baar bi waaye cheikh bi ñu waxtaan ci li nga xamante ni nag mooy jamono ji mooy yàqu-yàqu da nga gis koo xamante ni day jaay bitig yor magasin yu mag yor ay millions mais jékki-jékki alal ja di raaf di raaf di raaf ba du amati dara dara dara dara dara dara dara dara dara sëñ bi ku yàqule gan gàllaaj la mën a jëfandikoo ba ay mbiram jugaat parce que réew mi ñu fi daanu bëri na actuellement 2020 bi ak 2019 bi ñu génn. xam nga dafa am ay nit yoo xamante ni nit ay gàllankoor rek lañu am te nit comme comme garab la garab dafa am bànqaas am xob am kii ren nit comme noonu la reen bi ak garab bi ak bànqaas lu koy màggal di ko dundal ndox la ak yi ñu koy daf di ko daf ndax mu koy gën di dund tout le temps nit dafay soxla lool xam nga damay faral di wax ne waa ji nga xamante ni moom moo defar ordinateur. ba ñëpp di ko yéem mooy Bill Gates yàlla moo njëkk defar ordinateur si kaw mooy nit tabia nit ki comme Bill Gates njëkkut a defar ordinateur ordinateur nag am na loo xamante ni moom moo koy yàq ko xam ordinateur di ko jëfandikoo xam na ko comme virus virus boobu day dugg doomu aadama ñu ngi naan ay virus corona virus Ebola virus nanga virus dafa bëri virus yooyu doomu aadama su aarul boppam nag am kaaraange virus yooyu su ko duggee dafay yàq ay mbiram li ngay wax rek nit dana commencé am dara ñu dem ba ci biir gis lim amoon lépp pert na ko loolu ñàkk kaara nga daf koy waral tëju tëju daf koy waral àndal koo warta àndal timit daf koy waral ndax loolu dafay am da gis ay kilifa yoo xamante ne meloon nañ lu nekk mais dañoo toog rek seen mbir lépp ruus comme yii yëpp dafay taxaw taxawaay boobu nit da nga takk koo xam waroo ko takk bu ñu waxee takk koo xam waratu takk du ay affaire de géer ak géewal déedéet du loolu mbir mi du foofu maanaam takk ki nga xamante ne moom la sa biddiw ànd ak sa rawxaan àndal wax ji foofu la géer ak géew loolu amul sa alxuraan ay wax yoo xam nit yee ko créer rek pour di sonal yéen nit yi di leen xeeb mais bu ñu ne nit wat takk diw loolu mooy yow sa rawxaan da ngaa war a xool koo xamante ne sa rawxaan dafa méngoo sa rawxaan même si wàllu liggéey sax am na liggéey boo xamante ni moom moo la jig boo koy def da ngay am xaalis am na liggéey boo xam jigut la gis nga àdduna dafa doy waar dafa am ñu koy wax ñu bëri xamuñ ko loolu nag foo nit xam ko foo nga xam borom baatin moo la mën a xamal loolu am na koo xam soo àndalee moom sa mbir dara du ci baax léeg daf lay dal léeg yow mii nii nga am xarit boo xamante nii ba nga <laughs> commencé xamante ak moom sa mbir yi nu mu daan du ko doxe loolu dafay am mais am na xar yoo xam booy ànd ak ñoom sa mbir di gën a yokk comme doomu aadama dañoo ñëw si àdduna bi fii pour yokk waaye ñëw fi pour wàññeeku. yàlla indi bu mu ñu indi fii pour yokk la waaye du pour wàññeeku. képp koo xamante ne gis nga ne booy dem yaa ngi commencé wàññeeku taxawal nga xool sa entourage. xoolal ñi ngay àndal xoolal ñi ngay nekkal loolu nag foog nga am borom baatin mu xoolal la ko su la ko xoolee dina xam kat lii moom mooy cause bi. bu ko defee da ngay dem si cause bi rek nga dindi ko mu jeex nga continuer avancer loolu kese la. Cheikh Baye Ndiaye ñu waxtaan ci li nga xamante ni mooy wàllum fal doomu aadama réew réewi Afrique yi lu mel ne Côte d'Ivoire gi nga tudd léegi ak Ghana ak Nigéria ñett dëkk yooyu nekk dëkk yoo xam te yab nga leen lool miin nga leen lool miin nañ la sax lay wax ndax ñu bari ca état ba dañu jëflanteek sa jëmm ji ca ministère yi nga leen ñaanal wàllum fal doomu aadama Cheikh Baye Ndiaye dégg naa kenn mënu la fi ci réew mi mooy fal doomu aadama. am na ñoo jëflanteel ci wàllu ñaan mais ndax état Sénégal bi am na ñoo fi jëflanteel moo xam opposant bi wàllu fal doomu aadama Cheikh Baye Ndiaye ci lañ bëgg nga ñëw wax ñu sa secret ci fal lan la. wàllu fal moom ak samp amul kenn ku ma ko dàq ci àdduna su ma neexee ma taxaw ma yëkkati sama loxo du ndamu dafa am loo xam ne yàlla su la ko mayee loolu ay xéewal la da nga koy santee suñu borom ndax yàlla moo wax ci alquran ne wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis yàlla solo la ay xéewal del wana ne yàlla daf ma may ndax mu dolli la comme ñun chaque jour si loolu la ñu taxawee gis nga nit dañ koy samp fal ak samp benn la mooy nga bëgg a jël nit samp ko si bërëb moo xam politicien la bëgg a nekk poste nangam nga fexe ba fal ko samp ko mu nekk ko nit koo xamante ni dafa bëgg a taxaw nekk directeur nangam nga fexe ba samp ko nit dafa nekk artiste bëgg nit ñëpp dégg ko nga fexe taxaw ba samp ko yii yëpp nag foo nga nekk sëriñ boo xamante ni sëriñ bu xam baatin dëgg nga nga mën a sampee doo kaa mën ndax samp am na samp yoo xamante ne buñ ko defee am na yoo xamante ni benn dañ koy def si benn garabu Dakar mm-hmm. dégg nga pour sol waaw daqaar lañ koy def buñ ko defee danga nga saf nit ñi saf àdduna wax jeef nekk rek nit ñi mun ñoo nekk di la wax de waaye danga nga saf àdduna képp ku la gis rek da ko saf te àdduna nag loolu moo gën a ëpp solo boo ko safee loo si garabu daqaar ba pare am na loo xamante ne danga koy liggéey su guy nga koy def te ku nekk xam na ne guy kenn ñemewul ko waa fa nekk rek am na ñoo xam soo leen joxoon ay milliards ne daaneel garab guy gii duñ ko daane mukk <laughs> mukk daanu faatu la ndax guy affaire jinne la bëri na nag li samp nuñ nag gis nga garabu guy ni muy màggee di njool di dem si kaw ba pare na di tontoo di wàcc noonu lañ lay sampee kon loolu ay secret yoo xam baatin la yàlla moo ñu ko may képp koo xamante ne bugg na see samp si yi ma wax boo si jëflantee ak ñun incha allahu taala danañ la si defal yooyu si kattan yàlla da nga samp te gannaaw boo sampoo kenn du ci mën dara ndax am na ay kilifa yoo xamante ni si biti ak fii ñu ngi jëflantee ñoom ci loolu di leen samp te yàlla mu ngi si defal ndam alhamdulillah ñu gis ne li nga xamante ni mooy 2002 euh, ñi ngi jaale ki nga xamante ni mooy Pape boobu Diop di ñaan yàlla suñu borom xare ko àjjana ci loolu lañuy ñu sukkandikoo waxtaan ci 2002 gisoon nañu ci footballeur bu mag boo xamante ni équipe nationale mën naa ne kenn ëpp ko foon bayre waaye jamono jooju fu masaan taxaw rek danaan moom ki koy ñaanal xale la muy Cheikh bay Ndiaye te boobu jamono jooju xam naa gën nga fee nekk ndaw du ñu tudd nag benn tur. waaye ñi seetaan te yàgg seetaan télévision yi xam nañ Cheikh Baye moom mu doon wax moo nekk nii waaye seex bu diggante boobu nga jàngaat fi yokkaat fi sa xam-xam dem ci dëkk Afrique yi euh, yokkaat sa xam-xam ci wàllu sunguf yokkaat fi sa xam-xam ci wàllu reen yokkaat fi sa xam-xam ci wàllu jat naam alxuraan moom ba ngay ndaw nga ko mokkal waaj ko sëñ bi lan ngay ñëwaat ci li nga xamante ne mooy actualité li xew bërki demoo Ndiaye muy décès Pape Bouba Diop bi dañu gis ne léegi ndaw ñi rek ñooy ñooy faatu waaw ma ñëw sa question bu njëkk rek mu nekk lu am solo li nga xamante ni jëflante bi nga xamante ni ñu ngi koy jëflante ak jaamu yàlla yi lu yàgg la mun na am nit ñi dañ si doog a xam si benn at yi passé wala ñaari at mun nañ ne daf nañ si expérience lu toll ay dix-huit ans wala vingt ans di génn di dem ba ñuy nekk xale bu ndaw xale bu tuuti gannaaw bañ ko donnee nag ñi dem wuti xam-xam ndax xam-xam du doy boo boolee li maam bàyyi lifi fi bàyyi bàyyi da ngay dem yokkaat si xam-xam tukki nañ fu nekk si àdduna bi dem nañ ba ay Inde ba ay Malaisie ba ay Singapour di jëli xam-xam yooyu di ko boole ak lañ xam ndax boo wootee ne yaay borom solution xam nga ne àdduna dañ la wusi te àdduna bu la wusee ne war ngaa dëggal sa boppu pour wane li nga xamante ni si nga woo àdduna bi pour buñ génnee képp ku gis na jëflante na borom solution rek xolam dana sedd macha allah loolu ñu yàgg ci nekk ci nag. génne ñu nga xamante ni ñu ngi koy génn sax di ko waxantee jaam yàlla yi boobu dañoo amagut ndigal pour génn mais ba ñu amee ndigal ndigal ko jógee suñu borom loolu moo waral génn bi ñuy génn ndax yàgg nañ ci tedd te kenn xamuñu si écran yi nii comme écran taxu ñuy génn ñun bëgg a siiw wala taxu ñuy génn dañoo siiw balaa écran alhamdulillah loolu ñu ngi siy sant yàlla. ci yow laa déggee tamit nga ne woon sëriñ bu amul xaalis mënta ñaanal kenn ba mu tijji ko ak sëriñ bu tukki tamit mënta ñaanal nit mu voyage li ngay viage moo tax nga wax ko wala. waaw xam nga gis nga secret gis nga <laughs> dégg secret secret nit bala mu koy defal nit da koy njëkkee si boppam. gis nga sénégalais nañ yeewu. gis nga fii képp kuñ fi nax yow la neex. kon d'accord ci eh, vaccin bi nga xamante ni war naa ñëw ñu war koo essayé ci sénégalais yi. non non parce que vaccin bi ay nit ñoo ko defar ay nit ñoo ko créé nit yooyu ñu ngi fi am nañ xam-xam bi mais nag xam nga lobby boobu moo ñëpp doole mun naa am ñoo ñëpp xaalis ay nit yu bëri la yoo am ay ay milliardaires ay ñoom Bill Gates yi sax si lañ bokk mun naa am ñooñu seen i am am si alal ñooñu ëpp doole ñu fexe ba kere benn lobby te xam na àdduna bi lobby koy doxal côté boobu rek la ñuy waxee ne ñoom foofu la ñuy ëppee doole mais amaana ñun sëriñ si suñ booloo woon nekk benn say di yëkkatindoo di dóorandóor comme de vaccin bi fii ñun ñoo koy defar. ñoo koy defar jox ko askan bi ñëpp utiliser ko am si jàmm ak salaam ndax ñooñu li ñuy defaree ay vaccin du dara yëpp si gàncax gi dañ ko jëlee. waaw ñi nga xamante ni dañuy woote woo mbir ne mën nañ ko. te mbir boobu ñuy wootee ñoom mënuñ koo am. léegi loolu nit ki dam foofu moom moo war a am xelam. gis nga fii képp kuñ fi nax yow la neex. boo bëggee ñu nax la yow yaa am sa ñàkk fayda wala sa ñàkk bopp. dem si koo xam ne si benn waaye boo xamante ni mi ne la def laa war a defal tukki laaj boo amoon fu la laaj ko passeport am ban sëñ moo la fi ñeme génne passeport am tijji dafa war a am ay visa fees dell nga xam ne sëñ bi na tukki xam lan mooy secret tukki même xaalis tamit noonu la sëriñ bi lay wax ne la mun na la defal càngat xaalis damal këram soo demee këram da xam na kii tedd na wala du tedd malgré ne tedd du dara yaa ngi dégg yàlla rek moo am waaye mandarga la misaal la gis nga nit lépp lu muy woote daf koo war a nuru daf ko war a nekk waaye di woote dara ba pare boo boo dawee si nit ki fekk moo gën a pauvre wala amul dara yaa ngi dégg di woote ne mën ngaa defal nit mu sanga sanga nit mu am ay milliards te boo demee këram laa xadarallah dara lu am njëriñ nekkut fa waxuñ ko pour xas ñooñu wala damay faral di wax sax ne gis nga sëriñ sëriñ dëgg ku xam baatin dëgg du si toroxloo loolu sénégalais yi yeewu ñi nga xam xam sénégalais fii ndaysaan dañoo nekk nit yoo xamante ni wallaahi léeg-léeg dañ leen xool seen esprit sax yow da leen yërëm ba da xam ne ay nit ñoo leen jël kere ay mbir daf ko seen bopp yi ñu gëm ko gis nga sëriñ du si ay toroxlu di toroxal sa bopp donc loolu du sëriñ de jotewut a sëriñ dara du si si dara bu bëri wala nangam gis nga sëriñ xam-xam la xol la leer la ak njub la bu nekk mooy xol yàlla xol bi la soxla comme li ngay natt foofu nekkul si sëriñ foogee ku toroxlu kooku moo mën a faj sa aajo yi da ngay nax sa bopp da nga dem si sëriñ sax gis ko mu nekk sax nga ragal ko man dafa may dal damay reetaan rek am naa ay ñoo xam ne dañuy ñëw fi buñ duggee ne ni ci kii moom dama ko ñemee xaaral ma ariel ko nangam kii bu ma ko joxee benn un million fekk du loolu man fu may jëlee samay xaalis moo bëggee xaalis guddi guddi ay mbir fëgg ma jox ma mbuus xaalis ay jinne la koy jinne fëgg ma jox ma ay mbuus xaalis xaalis nu ma ko bëggee noonu laa koy amee xaalis laa la wax nit mënu maa tëj ci xaalis xaalis nu ma ko bëggee noonu laa koy amee loolu dama koy wax ci kaw comme loolu sekkara la mi ngi fi bayre tamit noonu la mel kii lay waxal ne la sëriñ bu am bayre dëgg boo demee ci moom danga xam ndax kii am na bayre wala amul bayre du ndamu boo fa demee da xam na kii ni solo dafalee sa bari te nit nag lu njëkk ci moom nag mooy li muy wuti bu ko demee mu fekk ko foofu mu feeñ si kanamu nit ki feeñ si ay waxam feeñ si ay jëfam. dinañ ñëw ci faatu faatu yi nga xamante ni dañoo ubbi groupe whatsapp tuddee ko soppee Cheikh Baye Ndiaye danañ ci ñëw léegi waaye balaa boobu ñu joxe numéro téléphone bi 77 972 00 00 77 972 00 00 Cheikh Baye Ndiaye borom solution guide spirituel mi ngi nekk fii ci Dakar ci diwaanu fi nga xamante ni mooy cité Damel waaye sëriñ bi dañu gis ne faatu faatu yu bëri dañoo def ay groupe fans club. ak ay moodu moodu tuddee ko soppee Cheikh Baye Ndiaye dama xamul nag lu tax ñu def ko parce que Cheikh Baye Ndiaye ci wàllu këyit ak wàllu euh, nationalité daf ciy ñaan tey ji ñu bëree bëree bëree bëree bëri am nañ këyit ci réewu France yàlla ak sa jëmm ji moo tax loolu moo tax ñu ubbi ko ci wàllu góor ñi waaye faatu faatu yi dañ la sopp wala faatu faatu yi eh, daal nu mu demee noonu daal gis nañ daal jigéen ñu bëree bëree bëri boo waxee ñu ne Cheikh Baye Ndiaye borom solution te jigéen ñaara koy andi ci doomu aadama moo bëgg nañ nga ci leeral waaw sopp sopp mu ngi ci waaye sopp bi du ñoom yàlla la dafa am looy def di ca nekk yaa ngi dégg bu ko defee yàlla boole seen xol bi te bëggante boobu ngir yàlla la leer gu jógee ko ci leer la dégg nga te timit waaye timit am naa baatin gis nga àdduna bi lépp baatin la fii dara du neen boo jàppee ne lépp neen la da ngay nax sa bopp yaa ngi joxe exemple rek si wàllu xaalis boobu lay doog ñëw ba pare doog a ñëw si faat faat yooyu maa leen nuyu ñoom xam ne suñu soppale ñu ngi siibur fu nekk si àdduna bi macha allah daf ay group ak ay daayira di ñu bëggee alhamdulilah ñu ngi leen sant maa ngi ñëw si ñoom léegi ma wax ñoom mais si wàllu xaalis boobu lay ñëwaat tey gis nga secret dëgg da nga ko war a am. tey yàlla daf na Malaisie bi nga xamante ni dama fay dem lu bëri te ku nekk xam na ne Malaisie nu mu sooree da nga fa def heures de temps vol pour doog yegg Malaisie foog nga jël daf Sénégal 12 heures de temps dem Dubaï wàcc Dubaï jëlaat 7 heures de temps doog a dem Malaisie. gis nga Malaisie man ngi xam ay nit yoo xamante ni tey yow boo nekkoon directeur entreprise léegi bu ko taxal benn entreprise su ma ñooñu financé la ay deux cent millions trois cent koy defal léegi. noonu laa ko amee si ay artistes yoo xamante ni dafa am fu ma jaar ak ñoom si ay wàllu ñaan ma dem ba téye leen tey boo nekkee artiste moo buggoon tey artiste bu gën a mag fii si dëkk bi nga toog ak moom suba nga toog ak moom nga bokk si labeelam gis nga sëriñ am na loo xam daf koy mën sëriñ dafa ñëw pour lu tax ambassador of peace and love bi dafa am lu ko junj te am na loo xam yu bëri dama koy daf si suuf kenn xamu ko comme sëriñ dafa war a taxaw taxawaaye dafa war a nekk multidimensionnel multidimensionnel nekkul rek nga toog léegi lay rek téye kurus bi wara nanga waaye foog nga xam àdduna bi sekkare àdduna nu muy doxee sekkare àdduna tamit dafa am loolu foog nga xam ko soo ko xamee yàlla dina la dimbale comme nag ñi nga xamante ne tamit ñoo ñoo nekk Europe faatu faati macha allah ñu nekk Amérique ñu nekk Australie ñëpp am ñoo xamante ne xarit di soppe yi bari nañ ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax ndax xam ne ñoom bëgg guñ ma bëgg rek man maa leen bëgg maa leen gën a raw ci bëgg gi ngeen bëgg te bëgg bi ngir yàlla la ndax am na jaflante yu ma jëflante ñoom ñu kontaan si kóllëre bi kii ndax li ñuy def nii li may faral di wax rek connaissance moomu ëppal solo nit ki ñëw gu ñëw nga may jox xaalis ndax connaissance bi mu ngi may ubbil lu nekk ci àdduna bi ñu ngi may boolee nit fu nekk ci àdduna bi ma fay dem dégg nga comme loolu nag connaissance moo ñu ko may du nit ki ñëw bu ñu ñëw nga naan ko jox ma lii ma defal la lii wala nangam nekkuñ ci loolu waaye bu ñu defalee nit nag kat dana xam kat kii nii ah man de war naa ko defal nangam moom mooy xool si xolam yëkkati dara jox ko sëñ bi loolu nag ay baatin la ay leer la foog nga xam ko doo ko ah, mën mbokk yi dégg ngeen li Cheikh Baye Ndiaye borom solution guide spirituel leeral numéro bi mooy 77 972 00 00 77 972 00 00 numéro bi mooy daw noonu ci baaru écran bi 77 972 00 00 Cheikh Baye Ndiaye mi ngi nekk fii Dakar ci fi nga xamante ni moom mooy cité Damel waaye Cheikh bi ñu waxtaan ci coow li parce que tamit duñ ñëw ci Cheikh Baye ba pare te du duñ waxtaan ak moom ci li xew ci dëkk bi. subal bi danañ ci wax. mais gaaw a dee bi. gaaw waaw loolu. ak li question boobu actualité bëgg naa tamit ñu waxtaan ci waaye ñëwal ci football ba pare ñu soog a dugg ci coow loolu. waaw xam nga danga joxe exemple si football mi ki nga xamante ni mooy Pape Bouba Diop ñu ngi koy jaalee askanu suñu gaal yëpp. te xam ne macha allah bégal nañu ay guddi yu neex bégal si képp kuy doomu Sénégal ak képp ku sax ku du doomu Sénégal maanaam humanité bi yëpp la Pape Bouba Diop bégal si biyam boobu. bi amal diggante France ak Sénégal. man mi jamono bi may nekk xaaxira di jàng sax am na ñoo xamante ni ñi xamee Sénégal si biir Pape Bouba Diop boobu noonu. boo ne Sénégal rek li leen njëkk a wax Pape Bouba wala ñu laa xàggu Diouf mooy ki def affaire teinte bi moom lañ lay mooy El Hadj Diouf wala Pape Bouba Diop. macha allah kon nga xam ne football lu am solo la si dëkk. mi ngi yóbbu tur dëkk foo xamante ni sax mën na am gouvernement yi sax mënuñ koo liggéey mu yegg foofu comme na gouvernement yi respecté ñi nga xamante ni ñooy doomi sénégalais yi jël di yóbbu drapeau Sénégal foo xamante ni ñoom mënuñ ko faa yóbbu man exemple laa ci man damay yóbbu drapeau Sénégal foo xam amul benn njiit fii nii wala ministre bu ko fay yóbbu su ma neexee ma taxaw wax ko ndax dinaa dem jëflante ni mu xam ne kii Sénégal la kontaan si Pape Bouba Diop de ndogal yàlla la ndogal day am waaye am na ay cause ak sabab waaw ki nga xamante ni dafay dafay nekk eh, star wala mu nekk ni koo xamante ni yàlla daf ko teel ubbi Pape Bouba Diop boo xoolee bidéom bu taxawee nii maanaam si misère la mos a nekk dafa mosta kontaan mm-hmm. mi ngi am xaalis waaye mosta kontaan mm-hmm. loolu foog nga xam bidéo ni nga xam ko mm-hmm. misère boobu si la nekk ba këram mi dee waaw moo tax loolu dafa mos a bàyyi xel am na ñoo xamante ni ci loolu lañ nekk comme ni Pape ba Diop mel nii ñi ngi am àdduna mais si misère lañ nekk danañ toog di ree mais buñ jàkkaarloo buñ tëjoo du jooy comme loolu bu ko nit melee lii dalla fexeel nga jokkoo Cheikh Baye Ndiaye borom solution mu am fu mu la teg jaar la si yoon ndaxte bëri na ñuy dund comme moom li muy dund nii si misère la dee waxuma feebar bi de feebar bee mujj si misère dundam bi yëpp la Pape Bouba biddiwam noonu taxaw dundam bi yëpp da koo misère ba xëy dee. yàlla na si yàlla musal. ci yàlla musal waaye cheikh bi dañu waxtaan ki nga xamante ni mooy moo du Kara Mbacké ñu ngi koy ziare bu baax a baax di ko nuyu suñu sëriñ bu baax boobu ñu gis na jamono ji coow li bëri na ñi naan war naa samp camp ñi naan warta samp camp lan moo ci sa xalaat lan moo ci sa gis-gis en tant que chef religieux. waa li sama xelaat ak gis-gis mooy ne gis nga mbir bu xewee ñun mbir bu ne taf xew. dañuy yëngal bagage yi ñu xool ko zaahiran wa baatinan duñ ñëw tëb tëb rek di wax gis nga mbir mi sëñ Modou Kara suñ kilifa la kuñ nawloo la te nekk n'importe kii si dëkk bi nii nañ waxante dëgg rek du question fu mu juddoo ak fa mu bokk waaye liggéeyam la maanaam taxawee na noonu ku nekk xam na ne instant bi du xale doxale kenn de te liggéey bii muy def yàgg na ca waaye ak ànd liggéey bi lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg maanaam dafa am problème ak diggante ak état parce que am na ay sëriñ ñu baatin ñu xamal président bi na ko kii nii liyam lii nii tey 2024 problème bi coow li 2024 moo jur lii yëpp ñu bëri xamuñ ko nag maanaam coow troisième moo jur lii am na ñu ko xamal na ko kii nii 2024 tey ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a taxaw bés boo taxawee ne da ngay samp troisième mandat si ñu war a xeex ak yow daf sax coup d'état bi si moom si lay bokk. si milisam yi. dégg nga li ma lay wax nii lu leer la de. li ma lay wax nii kenn mënu kaa dindi. lañ ko xamal borom réew mi président bi gaa yi jukk ne nañ gaaw tas mbir mi. kon yow jàpp nga ne Serigne Modou Kara pion la boo xam daa pare pour sonal état. pion la kay léegi dañoo toog fi Sénégal bàyyi nañ bàyyi naxante pion la pour état moom dof pion la pour état parce que tey àdduna xam nga tey mun nga nekk di di jëf benn mbir pour yàlla ak diine mais da nga dem ba ci biir dafay ëlbati tey saay-saay yi tey bëri na ñoo xamante ni tey suñ bëggoon yàq Sénégal fii nii tey mun nañ ko jaare sëñ Modou Kara mun nañ ko jaaree sëñ Modou Kara tey affaire terroriste yi yëpp ngay dégg buñ duggee si dëgg pour bu kaa yàq genre ñu mel ni sëñ Modou Kara la ñuy jaaree xamoo loolu <laughs> li ma la wax nii genre yu mel ni moom la du question ne Kara moom am na yéene bi mais àdduna moo toll foofu. àdduna moo tollu foofu xam nga yii nii ba mu ko keree yàgg na kenn waxu ci dara. lu tax ñu xaar ba tey ñu doog cee wax. kom am na lu tax. dañoo gëm ne seen vingt deux mille vingt quatre bii nii xam te deux mille vingt quatre bi dafa lëndëm gëm loolu ne ne bu ñu demee war a laaj troisième mandat kii nii tey su ñuy indi problème si gu kiyam boobu noonu état maanaam petit état boobu mu yor. petit état la. petit état la. waaw si biir état état la si biir état. état la ci biir état. léegi nag dégg ngeen li Cheikh Baye Ndiaye wax. état la ci biir état loolu moo am wax ji buñ ko làq-làqal. wax ji buñ ko làq-làqal état la ci biir état état nag ci biir état nag danañ ci làqatoo diine danañ ci làqatoo ab aw askan loolu dafay am yàgg na am si àdduna <laughs> yaa ngi dégg waaye ñi nga xamante ni nag ñooy doom julli di nekk ay murit nañ dala dalaa teye xam ne mbir mi dafa jégg loolu du affaire de murit wala tijaan wala nangam affaire de état ak état la petit état ak grand état la affaire de petit <laughs> état la ak grand état nañ si def ndànk bu baax. tey man li ma koy conseil seen waajur la. ku ma nawloo la liggéeykat la macha allah li ma koy conseil tey système bi nii mu créé nii loolu doxatul si àdduna bi. tey dañoo nekk si beneen àdduna. tey mun nga dimbale ndaw ñi te doo créé comme genre yu mel nii. tey lii amul ku la ko mën a layal wax jee fi nekk rek non non lii mënuñ ko lay. ay année deux mille deux mille yooyu mën nañ koo lay parce que boobu àdduna àdduna bi nit ñi yeewooguñ mais léegi lii nii ak ni mu xewee nii ak ku dégg terrorisme xam ni mu mën a def ak nit ni mu fa mën a jaaree di def ay mouvement jaar foofu noonu joxe ay xaalis ak nangam nangam ay xew ci biir yëpp li ma lay wax ni laaw sekkaral te ragaluma ci dara fu ma neex la ma ma fa nit ñi fu ma neex na ma fa digg woo ku mu mënta doon ragaluma ndax li may wax man dama koo xam te am naa si ay lay yu wér ne petit état la bu bëgg a xeex ak grand état <laughs> petit état bu bëgg a xeex ak grand état léegi nag man li ma koy ñaanal mooy na teg lépp ci suuf mu dellu fi nga xamante ni foofu la yoonu ay maamam jaaroon mooy taxawal ay daara alquran taxawal ay juma nit ñi di nodd di zikar di nodd di zikar di cant loolu mooy yoon bi Modou Lo ak ki nga xamante ni moom mooy Ama Baldé lamb ji loo ci wax Ama def na vidéo ne nay dekk roi des arènes ñi ànd ak Modou loo ñëpp nee nañ Modou mooy continuer nekk roi des arènes yow la moo ci sa gis-gis. waaw li si sama gis-gis premier chose mooy ne làmb ji gars yi jàpp goñ dat dat bi lu tax mënta am ak dat bi bu amee arrangement kan lay am dat bi moom nuñ koy gën di avancer si lay gën a nekkee arrangement Modou Lo. luñ koy gën a pousser mais bu ko jëlee léegi. Euh, booy bi dina ko daan. man de bu ma doon conseil bu combat bi bu nga ko taxawaloon si weer yi wala ñaari weer yi wala ñetti weer ñeenti weer yi. Hmm. da koy luy tooy moom si si moom lay jugee ko. fii janvier. moom ni muy gën a soree rek mu moo gënal mais période bi baaxut ci moom. Hmm. waaw loolu laa koy waxal. mbokk yi ki ñuy dalaloon tey mooy Cheikh Baye Ndiaye borom solution numéro téléphone am mooy 77 972 00 00 77 972 00 00 mi ngi nekk fii ci Dakar Cité Damel sëriñ bi sa kàddu gu mujj looy ñaanal askan wi ak ban secret ngay may askan wi sori te bëgg dara. waaw alhamdulilah li ñaanal askan bi képp koo xamante ni yaa ngi nekk ci ay jafe-jafe moo xam bu mu mënta doon ak foo ñu mënta seetaanee si àdduna bi. lu nekk boo may seetaan jamono boobu loo yëg ci ay problème bul hésiter jëlal nga composé nga woo Cheikh Baye Ndiaye boo déglu sa seytaane wala sa jinne wala sa rab bi tere naa la doo xaaral nga déglu wala yi non boo ko dégloo rek jëlal nga jéem a woote si numéro yi mu ngi noonu wala bu fekkee yaa ngi fi Sénégal nga ñëw këram incha allahu taala mu jëflante yow si kàttun yàlla ñi nga xamante ni ñoo nekk ab bitim réew du ñuy déglu mun na am ñu nekk si ay jafe kenn mënu leen see génne bu ñu déggee lii maa ngi leen may lii ñu faral di ko wax nee nga mooy nañuy jàng ay astafurullah chaque jour jàng ko cent fois waaw yonent bi dafa képp koy jàng astafurullah cent fois chaque jour bépp bàkkaar boo am fii ba ngoon incha allah yàlla da koy effacé te bëri problème yoo xam ne bàkkaar moo koy waral beneen bi tamit ñi jël di wax subhanallah wa bi hamdihi ñi koy wax cent onze fois képp ko mën di ko def lii amul lu ko gën a fort nañuy tudd yàlla waxuma nag woowuma pour ñëpp nañ ñëw ci man waaye am na koo xamante ni bu mënta ñëw si man na jël yii nii nga xamante ni maa ngi ko koy jox mu koy jël di si tudd yàlla. boo mënatul tudd yàlla na bu fekkee ay seetaane raba jinne jàpp nañ la ba jaamu yàlla ay baadiyaat yow mënatoo ko si ngay doog a ñëw soxla Cheikh Baye Ndiaye nga ñëw mu jëflante ak yow. dégg nga comme nag maa ngi ñax askanu sunu gaal surtout jeunesse bi ñu gën a am fulla gën a am gëm seen bopp te ñu xam ne dëkk bi kat sunu. avenir bi su ñun la nekk suñu loxo dégg nga bu avenir bi tey ñun buñ taxawalee ñi rafetal rek ëllëg dëkk bi dana rafetal na nekk jeunesse boo xam jeunesse bu am conscience comme li benn borom xam-xam di wax rek wax ma sa ndaw tey ma wax la sa ëllëgu réew ndaw tey na mooy day nekk ñoo xamante ni dañuy xam liñ bëgg xam fañ jëm te ñu moytu di dugg si yoo xamante ni du nekk seen njëriñ ndaxte problème yi si dëkk bi bari nañ te nañu respecté seeni waajur yi respecté askan bi respecté ñi nga xamante ni ñoo ñu jiite nekk suñu mag nekk suñu baay comme di wax euh, sénégalais yëpp ñu ngi leen ñaanal yàlla yal na yàlla wàcce jàmm Sénégal fii nii ndax jàmm si la lépp xaj ndaxte musiba moom nit ku ko yee fii nii foog ne ñi ngi koy yeel yi ñoom ñoo si ëppale yaa ngi nax sa bopp Cheikh Baye Ndiaye képp koo xamante ni yaa ngi ko yéene safaan. musiba nga jàpp ne moom musiba bi moom moo ci ëppale dangay nax sa bopp képp koo xamante ni yaa ngi taxaw dima ma xool di ma yéene musiba musiba boobu xamal ne yow yaa ci ëppale nax suñ xol yi duñ ci yéene lenn lu dul lu baax jaamu yàlla yi comme nañ fexe ñu rafetal ñu fexe loolu mooy jëmale Sénégal kanam di ñaana ñëpp jaamu salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.